Euh, le candidat Bassirou Diomaye là. Bassirou est en train de voter. On assiste au vote euh, du président Bassirou. Président Bassirou. Voilà, dans sa pièce. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bassirou Diomaye Diakhar Faye 25 le 25 3 1980 à Ndiadiaye. le vote du président Bassirou. au bureau numéro 2. Effectuez votre vote. Euh, mi ngi noonu di euh, amal li nga xam ne moom mooy euh, son. Nah, ini kita dapat huge. ये हम पे मुश्वादी ये बिल्ड है आपको रिप्लेस ऑन द बाइस पॉइंट्स नो नो नो आई एम दिस सॉन्ग दिस सॉन्ग c'est

ñu daal di xaar rek mu daal di

Allez. ay xale yu ndaw ñii voilà comme euh, ni ngeen ko gisee le candidat je sais pas le candidat Ah, daal dina dinay eh, amal li nga xam ne moom mooy eh, votam ba noppi eh, fi mu toll nii ñu koy xaar mu def dernière formalité pour ñëw jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñu daal di leen déglul xibaar yi nga xam ne nan na ko wax. fii baax na

xaaral xaaral kii la jot jot na la jot na la xool jox ma jox ma ani jox ko benn jox ma ko benn jot na la jot na sakara Voilà.

xaaral xaaral xaar bi taxaw Hannibal Hannibal Hannibal Hannibal woo naa la woo naa la il attend le chauffeur il attend le chauffeur il attend ah waaw naka la xaaral ma ñu commencé kii moo gën a yaatu dafa métti Ayo, drama di drama nyot, guys. Saya mau tekan Pas fatigué. Je suis là, Karim. xam nga par rapport à sa taille fii dafa am hauteur dina baax waaw mais ñoom bu ñu reculer wul ñoom la c'est eux qui doivent s'organiser.